nguur gi. muy woyofal loxoom. muy woyofal loxoom. ci yenn acte yi. yi. ku ko def. ku ko def. mu seet nu mu koy arrangé. mu seet nu mu koy arrangé. ca na mu gën a rafete. ca na mu gën a rafete. ak na mu gën a woyofe. ñeel citoyen bi. bañ a topp rek ñi naan na dal. bañ a ko teg ko ko ba mu diis rek déedéet loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat bàyyi xel la ñiy àtte ñépp ngi ci biir ñiy àtte ak ñépp ngi ci biir nag ne su ko defee kon nag nee na di nuy nag président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak ñii mu àndal di liggéeyal Sénégal premier ministre ak ministre yi mu ëmb di nuyu assemblée bi ak seeni député di nuyu opposition bi ak seeni parti tabaarakallaahu ne parti yu bari itam suñu ko mënee wàññi wàññiwul dara ndax du jariñ te daf nuy tardel rek te daf nuy permettre nuy yar njaboot gi ci xastente ak waxante lu bon di ñaan télévision yi ñoom itam ñuy diffuser lu baax ñu yor télévision yi ñu yor rajo yi ñoom itam am nañu wàll ci réew mi ci avancement wala mbaaxu réew mi waaye ñoom itam dañuy juum rek léeg-léeg loolu itam mu ngi leen ci ciy bàyyiloo xel bu baax a baax ndax rajo dafa garaaw lool damay wax léeg-léeg. dana may wax léeg-léeg. dana may wax léeg-léeg. su ma waxtaanee ak moom ci mbir. su ma waxtaanee ak moom ci mbir. ni ko ah rajo bi mën na rajo bi wax na ko de. ni ko ah man rajo bi de wax na ko de. <laughs> man du ma déglu rajo. mu ni man du ma déglu rajo. ndax ma nattu la. ndax nattu la. déglu rajo. déglu rajo. wala télévision nga xool ko. nattu nee na nattu la mu ni ma moo tax duma ko xool bu dee télévision bu dee rajo bi duma ko déglu mu ni boo ko dégloo rek bu yàggee mu désorienté la du ko déglu du ko xol yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag su doon jaar yoon su doon jaar yoon ñu doye ko li ñu ko tuddee ko li day baax day baax ndax lu ci ne mën na liggéeyal réew mi ba ku nekk jële ci njariñ ba ku nekk jële ci njariñ waaye niñ koy defe daal ñaaw na te dafay tilimal réew te dafay yàq sunu jëm kanam kon mu ngi leen di bàyyiloo xel ñoom itam di nuyu ñépp nag di nuyu monsieur le ministre Abdou Ndéné ne ak gouverneur am bu baax bii monsieur Amadou Sy nga xam ni moo nu yilif ci région bi ak suñu préfet bu baax bi ñu ngi koy nuyu bu baax kon tànn nañ ci moom ñun ñi nekk ak moom ci dëkk bi